ak bi mu wuyoo ba ñëw ci bi mu def ci euh, kii nu capitaine Touré donc bu fekkee ñaar yooyu dañuy njortu ñun ni loolu moo tax ñu jàpp ko moo tax ñu wóolu ko pour man seen xel dafa war a dal quoi ndax Pape Alé gis ngeen ko dafa yor ay document di lire li nekk ci document bi xam nga di ko wax donc xanaa nit boo ko jaay doole ak loo ko mën a mën a jaay doole mu indi preuve soo ko dégloo di nga ko bàyyi mu ñibbi ndax Pape Alé waxul pour wax dafa tiim document nii dossier la tiim di lire nekk ci biir dossier bi di ko wax et buñ nee nag secret de l'instruction kenn waru koo divulguer maanaam kenn waru koo génne pour yéen xamul secret de euh, l'instruction mooy bu fekkee ni doyen des juges dafa la woo dina déglu la nga xam ne moo fa xew kenn waru koo xam ba keroog muy def noolee wala mu lay yóbbu ci kanam procureur donc foofu la foofu la war a jeexee secret de l'instruction foofu la war a jeexee gis ngeen Ousmane Sonko bi mu demee wuy ji ba ñëw dafa def conférence de presse li nekk ci dossier yëpp ak comploteur yëpp mu wax ko man dama ko ci encouragé xanaa kon léegi bu nu indee Pape Alé Niang après suba dañuy jëli président Ousmane Sonko ndax bu fekkoon ni dëkk bi yoon mi ngi tëddee njaaxaanaay ma ciy gis sa bopp yow mi di ma seetaan nga ciy gis bopp pour man secret de kenn du ko génne mais Ousmane Sonko lii mu def dafay déjouer seen seen plan du dëgg parce que li nekk ci dossier bi yëpp bu ko génnee wax ko pour protéger boppam la sinon bis bu noppee dinañ ko jël yóbbu ko ci kanamu procureur te dossier bi ñun ñëpp xam nañ ni non lieu la dafay war a yem dafay war a jeex tàkk tàkk tàkk tàkk parce que wax na li nga xam ne moo ci nekk lépp déjoué jiitu seen xel parce que Ousmane Sonko lii mu def Ousmane Sonko baax. ndax lii bu ko deful woon wallaahi da ngay xëy xëy suba suba suba suba suba ginnaaw suba ñaaree fan laxas ko ñu acca na dem wuyu ji procureur force mais nag fi mu toll nii da leen a ndax nii nii nii nga xam ñëpp xam na ñu mu demee xanaa ñemewuñu naan dañ koy yóbbu ordonnance de renvoi quoi ñemewuñ koy yóbbu ci kanamu procureur ci lii nga xamante ni ñun ñëpp xam nañ ni complot la yàgg nañoo xam sax ni complot la mais dafa gën a leer. bu fekkoon ne justice bi tëddee na njaaxaanaay ni mu war a tëddee njaaxaanaay lépp loo wax biir bureau doyen des juges fa lay des mais bu fekkee dafa am justice boo xamante ne dafa nekk Sénégal jàpp opposant yi di tëj di toroxal ki nga xamante ni moo nekk parti au pouvoir lu mu def gongo justice boobu boo ko amee da ngay jouer ci xelam lii ñu def dama ci ànd à deux cent pour cent ba deux mille vingt quatre Macky Sall dem ñu mën a nag lépp luy wàllu yoon ci réew mi ñu defaraat ko ba ku ne pouvoir bi nga war a am exécutif législatif ak pouvoir yépp ñu séddale ko kenn ku ci nekk jot sa bas ñoom waa judiciaire ñu am seen pouvoir bopp kenn du leen contrôler lu ñu def ñu xam ne ñoom ñoo ko def ku ñu jàpp ñu xam ne ñoom ñoo ko jàpp yoonu yoonu législatif du fi nekk yoonu exécutif du fi nekk mais loolu pour mu am il faut Macky Sall jug fi ba ñu ter ba ñu ba ñu defaraat lépp defaraat suñu administration yëpp ba mu baax boobaa incha allahu rabbi lu yoon tracé ñun ñëpp dinañ ci ànd ak moom ndax ñun ñëpp gis nañ nit ñuy jaayee doole boo nee juste dëkk bi amul justice ñëpp mer te gis ngeen ana sama ñi doon def manifestation démb jàpp nañ leen loo xamante ni yoon moo la ko may moo ne boo amee loolu naqari génnal nga métit lu ko loolu yoon moo la ko may waaw ndax ndax arrêté war na nekk ci kaw yoon ci kaw droit arrêté arrêté ministériel ndax war na war na devancer li nga xamante ne yoon moo na ko may ñun du dëgg donc il faut ñu indiwaat xel yi ñu xam ni bu fekkee ni Pape Alé lii muy liir di wax parce que xam naa ñeme ñemewuñ ni division des fausses nouvelles la te Pape Alé tiim documents yi nii liir di ñu wax bu dee pour loolu la na seen xel dal parce que Pape Alé mi ngi mi ngi kii xanaa ni loo koy jaay doole di ko jaay doole ba gis mu yor ay preuve di ko bàyyi mu dem yoonam quoi ni nga xaar nag fan la mu jéegi bëtam beneen bi ci des mën naa sax borosaale li nga xam ni moo xew ci ki ba nu jàpp ay garde corps président Ousmane Sonko man dama xamul Sénégal ban dëkk la ñu nekk ba du ñu indi léegi nit ñi convocation noonu lañ def Abdou Karim Gueye yow koo xam ne boo ko wooloo mu wuyu Ousmane ko mu ëpp doole senegal bi ko doyee des yu soxlaa daf ko woo mu dem wuy ji ko sàkkantuma la ay garde corps ay garde corps dañ leen a plainte d'accord mais bu fekkoon ni woolu nañ leen bind ko non ñoom par force dinañ wuy ji parce que kenn ëpp doole nekk seen kilifa biñ ko wooloo dafa taaloo dem wuy ji Sénégal amul ku fi justice di woote doo wuy ji jeng na jengul da ngay wuy ji par donc pour man li doon yoon mooy ñu yónnee leen convocation ba xam dinañ ñëw wala duñu ñëw foofu moo nekk mais léegi ñoom defatul ñoom léegi seen yoon nekkatu ci ku ñu soxla da lay fekk sa kër jëli la pelante la lu tax convoqué woo ko loolu lu ñuy méttit lu la voilà léegi nag dóor na ko dóoru ko dóor na ko dóoru ko ñi nga xam ne ñoo yor sécurité président Ousmane Sonko seen téeméeri xel xalaatoon ñu leen di fay weer bu dee ba pare ay nit ñëw di attaqué président Ousmane Sonko ñu ne yàcc na yasar bàyyi ñuy gaañ président Ousmane Sonko léegi nag légitime défense daf ci am légitime défense bi mooy ah bu fekkee ni ñoom danoo ñëw ba attaqué président Ousmane Sonko ci otoom foofu bu leen fa rayoon sax dañuy perte parce que yoon moom may kenn ku ne ci ñun. am droit circuler fu ko neex ci biir réew mi du dëgg loolu yoon moo ñu ko may donc Ousmane Sonko am na droit dem Cikki am na droit dem Caka am na droit dem Coxo fu ko neex am na droit xam nga mu dem fa yoon moo ko may loolu. léegi nag nee nañ dañ leen a dàqe ba seen biir kër yi di leen dóor foofu man dew ma fa xaw ma nu mu demee léegi nag bu fekkee ni ñoom dañoo ñoo ci oto bi bëgg a yegg si président Ousmane pour di ko gaañ. ñooñu am nañ droit ñu def légitime défense bu fekkee ni ñoom ñoo leen dàq ba seen biir kër yi xam nga di leen dóor ñu bëgg leen juger ci loolu noonu man dañu leen a dàq ba ñu dugg seen biir ñu génn leen di leen dóor comme ne ko waa Benno Bokk Yaakaar yi wax nga xam ñoom fen rek buñ naree juger garde corps président Ousmane Sonko yii nañu arriéraat film bi ba deux mille vingt et un bi nga xamante ni moo rey booy bi nekk parcelle nan la ko reyee. booy bi sori na ko presque deux cent mètres mu taxaw ci capot oto bi ginnaaw capot bi visé ci bopp bi ni ko tël booy bi dee léegi bu fekkee dañu war a ñaari garde corps Ousmane Sonko yi ci fee bi ñu ne dañu dañu leen dàqi dóor leen dañu arrière film bi ba deux mille vingt et un police bi rayoon booy bi ñu dem jàppi ko te ñooñu yàgg yàgg dañ leen di jàpp avant Macky Sall di nekk président ñi fi dee woon dinañ layoo ak yoon ñi fi dee ci bi fi Macky Sall nekk ak léegi dinañ layoo ak yoon parce que xam nga moo tax gis nga alkaati waruñu jox la euh, ordre rek nga exécuté ko da war a xool ba xam lii ordre boo war a exécuté la war a ordre boo war a exécuté bu fekkee dañ jox ordre leen tiiral ci ful bi amoo droit benn yoon mayu la ngay tiire ci ful bi d'accord nañ nag nga téere ci kaw koo xamante ni dafa ñëw pour bëgg la rey koo xam dafa yor arme pistolet pour bëgg la rey kooku jox nañ la autorisation xam nga nga téere ci moom mais koo xam ni yorul arme yorul lu lay gaañ xeer sax yoru ko nga viser bal ni ko tëf ci bopp bi mu wax ci liggéey ci saa si kooku yoon daf lay topp ci nii ak ci naa te pare actuellement nii nii yéen à mais yéen ñëpp xam ngeen ne radiation ngeen jën maa ngi nuyu nag gendarme bu diin tey bu ma toogee fii di vocal sax wallahi am na ci ngandi part de sama seet maa ngi lay charré bu wér parce que man dama ne woon damay bàyyi fii 20 jours may door a ñëw mais dafa ma ne sa làmmiñ tàggul ma ne ko déedéet mu ne ma waxal tey pour wax la ni am na ñu baax ñoo xamante ni ñu ngi ci biir armée bi ñuy fépp ay vrai patriote lañu yàlla na leen yàlla fay seen xol képp koo xamante ni xam nga ni lii ngay askan bee tax nga waat ko te di ko def lépp loo ci yóotu yàlla la ko suñu borom bi defal am na ay am na ay gendarme yu déeg yu nekk ci biir armée bi am na ay policiers yu déeg yu nekk ci biir armée bi te ñun xam nañ leen te incha allahu rabbi wane leen bu jotee li ma ci xam lépp dinaa def liste liste laay def 2024 président Ousmane ko jëlee réew mi ni ko kii de ku baax la woon bi fi régime bee nekkee kii ku baax la ki ñoom ñëpp dinaa leen wane ma yi ma xam ñu diñ bëgg seen réew yëpp ma xam leen à partir de 2024 bu mag Macky Sall bu ma leen di wane ñu leen di rajo suba ñoom ñëpp dinaa leen wane barki alxuraanu karim nañ ma may ba ba li jóg fi dinaa leen wane ñoom ñëpp à partir de 2024. léegi nag bu fekkee ni garde corps président Ousmane Sonko yi dañ leen a bëgg a jugé ci dañoo dàq ñi ba seen kër yi dóor leen ba gaañ leen nañu arrière ci policier bi daaw. police amul droit tirer ci kaw koo xam ne yorul arme yorul xeer yorul dara nga viser ko ni ko tëf ci bopp bi mu dee loolu tamit nañ ci wax.